macha allah sopp na bi jaay sëriñ jërëjëf jërëjëf sopp na bi mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi ziaraat lépp di santaat yàlla bu baax a baax a baax di gis moom sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu yaakaar tey ëllëg bi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ziaraat suñu Tuubaa ci kaw suuf ñu suñu taxal Bachir di ko ñaanal yàlla fi dawal tànn di ko ndokkale ci weeru tëdd bi ndax ñu weeru safar weeru bëtti weer bi nga xam maam suñu Tuubaa ko woon mais saa bu ko def ci sa mbëg ci sa mbëg loolu tamit ma ci fas yéene sant ma ci yàlla ci bés bi nga xam ne suñu ndam su tukki su natt yi si fan ñu dundal ko ci ay fan ñëw seen télévision TFM saa su ne mën nañ détail yi nga xam ne ñu ci biir dëkk bi biir Touba ak rek ku ñëwal suñu Touba bi wala taal bi doo xëy maa ngi ko ñu ànd ak détail yi détail ziar na wàññi ko màggal bi fas yéene wala mbégte te nag ñëw ci kër goo xam ne Sénégal yëpp ràññee ñëpp xam nañ ñu mais xam ne boo xam ne ku Sénégal yi naw la ci kàddoom naw ko ci jëfam rawatina nag ñu tànn suñu tubaab boo xam ne suñu tubaab suñu tubaab ko def ñu suñu tubaab ci ak taxawaay dañu fekkoon ci biir këram tubaab gis ñu waajee màggal bi waxtaan bu am solo dafa seen waxtaan moom jotaay la jotaay ziar la ak waxtaan tamit ci waxtaan màggal kon ñu leen leen wax yéen barakallahu Seydina ñu ngi lay dolli am ñoom di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi kontaan lool ci ñëw gi nga xam ni ci nga ñëw ànd ak euh, groupe teeral bi ñëw bi ñu Touba ñu nga ñu fekk ñëw ci kër dañu ko seen màggale euh, màggal nag yaakaar naa ne fi doon yi nit xam lan mooy maanaam ndax dégg nañ ko xañ na ba tay waaye nag kii ma làngal di Serigne Bass Cheikh Bass Mbacké di doomu Serigne Cheikh moom Serigne Sonia bi Serigne Cheikh Seye di sama jarbaat xam naa dina ci indi ay point ngir ndaw yi mën cee jàngee ngir xam lan mooy sababu màggal. léegi Serigne bi xanaa dama ñu fi nuyuwaale suñu sëriñ seen seen euh, seen seen Bass nga xam ne doom ko Serigne Cheikh Seye bu am waa loolu jàmbaar bi ñu doon sëriñ bi. kàddu gi wax na question bi jublu ci mooy soxla yu màggal. mbégte màggal waaw xanaa ma ñëw ci euh, ay tënk rek gannaaw bu ma ñuroo nuyoo njaboot gi nga xam ne ñoo nekk sa ginnaaw euh, màggal nag day lu gudd xam naa ne duñ ko ma a tënk ci ay ay ay ay minutes waaye li si am solo daal mooy bisu mbékk la te Sëñ Tuubaa moom moo wax ne képp koo xam ne sama mbégte sa dëkk la saa bu ñëwee nag ma ko santale ñu nekk ci loolu lañ ko séenee moo tax

gën koo yàggal mu yàgg noo jiite ñu ànd ko moom moom jëmmam rek jàmm la mooy mooy mooy mooy jëmm joo xam ne saa boo gisee rek ne jëmm waaye ñàkk ñàkk ñàkk xam rek nga xam ne kanam kanam bi kanam jàmm rek bu ñuy wax jàmm jàmm jàmm jàmm yow sa bopp boo nee jàmm xam nga kon jàmm ji bu njëkkee ci yow rek yaakaar naa ne bu ku nekk defee rek kon ñëpp jàmm day dal ndax àdduna kat li fi jar xiiroo ak ñaayoo jël ndax suñu borom mi sàkk doomu aadama laata mu koy sàkk xamal na ko ñaata ñaata at la fi def lim fi am kañ lay dee ak ni muy dee kon amul yenn pexe yoo mën a utiliser ko xam gi mu xam doomu aadama moo tax jël ak nooy dénk ko doomu aadama ndax doomu aadama bu ko bu ko yàlla dénkat ak nooy nayu dooy doomu aadama saa bu la maree day téye nooy te ak nooy bu yàggee nga far bu la téye woon bu te bu la dénkat ay nelaw tamit saa bu la maree doo nelaw kon xam na ne kon suñu borom rek moo fi nekk yàlla moo fi nekk nag moo ñu njëkk jàmmal njëkk a teral doomu aadama ndax wala af di karam naa bani aadama doomu aadama boobu nag ak teddaangam ba ca jiitu mooy jàmm jàmm ndax fépp foo nekk te amoo fa jàmm rek yaag tey wërsëg bi ngi dox ci jàmm wér gi yaram mi ngi dox ci jàmm kon sëñ bi jàmm jooju mu woote nag yaakaar naa ne ku xam lan mooy jàmm yow da njëkk jàmm sa bopp rabbi bi maa yasrahu asana maanaam ñu bëri dañuy dem ba ca jeexantalu xasida bi ñu koy wax muy yaa maalikal yaa man jàll xam xawadi fi xam jamee alwara bu mel ne bayit boobu da cee gën a da cee gën a lëng rek da cee gën a siiw waaye buñ commencé rek asaana xat faja bu mel ne boobu ay jaxasoo amoon nit ñi ko ba nit ñi di ko pëkk pëkkee problème amoon na nit daanaka bu jaxasoo nekkatul nit carrément ay jaxasoo amoon comme mën nañ koo xaw a sax misaal ak yi jamono toll ndax booba neenaan ko yow li nga nekk nii rek nga yóbbu wàll na na ko yow daal faaw nga kii ndax xam nga leen di indi lay jafe-jafe nit ñi yàgg moom fu sori xëy na a wax ci histoire waaw ba ñu yegg ak moom foofu yegg ak moom ma ne saana xat fa jaar xas da googu rek xas da jàmm la boo xam ne suñ koo dundal euh, rek ngir ngir jàmm jàmm moo nekk loo xam ne mooy sëñ bi nekk yëpp si la doon wax na ne ginnaaw bi nga xamee ne dem na ci géej gi te mooy mooy li nga xam ne moo waral cant bii ñu nekk euh, te mooy waral mu wax ci genn xasida fataxta baaba sukri min sahri safar mu ne ubbi na buntu cant ci weeru weeru safar bi nga xam ne ak cant nañu def maa bi nekkee ci géej googu ci liggéey bi tar boobu nga xam ne jaayante woon na ko digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko liggéeyal ci mbind ak ci yeneen yu wuute wuute daanaka ñun li ëpp ci liñ fësal ci liggéeyu sëñ bi ma maanaam ci mbind meek ay mbiru mbiru kiraar waaye sëñ bi sëñ bi kon war a xam xamle la yeneen a yeneen facette ci wàllu jom ci fulla ji ak fayda ji ñun def ba taxawal lii yëpp te ba muy taxawal dëkk bii ñu dajee nii euh, ñun ñu àndoondoon yëpp daanaka ñii moom ñoo ma maase wala ñaari at lañ koy magee te boobu moom fanweeri at la bi muy taxawal dëkk bi mille huit cent 1880 1888 88 89 89 am waaw 88 89 am na ay réew bi mu koy taxawal moom ndax nee na ñi ñi ëpp ci moom nee naan 55 la ñii mu taxawal kon moom 30 ans képp la mu taxawal lu toll te ba mu fi ñëw li gën a yéeme mooy mbaar mi nga xam ne moo fa njëkk a nekk moom moo ko daajal boppam loolu lu war a xamal xam ne la moom moo ko defaral boppam loolu jom jom ak fulla ak fayda te fii dara nekk woon waaye buñ ci dikkee buñ ci dikkee ba liggéey bi yegg ba dem ci géej gi ma ba mu dem liggéey géej gi maanaam nee def ay xasida yoo xam ne xasida jihaad bi bi mu ko commencé di def maanaam nee naan euh, soldaar yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom danoo commencé di faatu ci mel ni mbas moo xam ne daa amoon foofu su daan ko xamalee ne ko boo bàyyiwul xasida yi nga xam ne xasida jihaad yi nga xam ne daa koy dund soldaat fee ku di naan faatu ci mbas mu daal di tegale loolu toujours xaram iblis loolu loolu rek fi maanaam symbole bu rëy rëy la si jàmm maanaam nit di xeexal yow nga dem ba jekk man koo gaañ waaye na baal naa loolu symbole la si xam ñaare ñun xameef na xameef na maanaam nit booy xeex ak moom bu la bu la sonalee lool bu la jekkoo nga fay parfois sax ñu tooñal hmm. waaye dem ba jekk ko xam ne yow mii li nga yor yoru ko bu hmm. la yor nii ne boo ko tiiree ci kawam du dal ci kaw hmm. mu tasaaru waaye nag nga ne ko baal naa waaye nag nga ne ko baal war a xam ne la basal boo jël moom dafa daj ko maanaam Sëñ Tuubaa fopp yi ñoo bari foo foo ko xool rek dafay daf ñu koy daf ñu koy rey raw fopp bu dee ci jàmm moo ñu ko fopp bu dee ci jom moo ñu ko raw bopp bu dee ci xam-xam moo ñu ko raw bopp xam-xam moom nekkatu lu ne nattam sept tonnes cinq cent nekkul loo xam ne benn waaye rek ñu ngi bind ko te amul woon jom nag koo xam ne yow trente bi nga amee bi nga amee quarante ans ba ñu nga amee soixante quinze ans yi ñu wax ne moom la dugg yëpp ci ay coono nga nekkoon waaye ak liggéey bu rëy bi nga xam ne daanaka ko diggante boobu dafa loolu bu rëy rëy la kon suñ bu dee dañuy wax jàmm daal suñ ci waa moom mooy symbole bi man waaw loolu seen bu sax macha allah kàddu yi de xanaa ne gàtt li ñu wax wante dañu sa njaboot bi. ñu jógee gën a yaatu. ndax lépp tegu na ci xam-xam. tegu na ci pas-pas. tegu na ci dugg. ak rawatina âge yi nga am. kon fi mu ne macha allah. sa jàmbaat la lay si kontaan nañ ci moom. waaw dégg nañ ci moom. ñu wax leen kàddu yi waaw jërëjëf Seydina kàddu mooy xanaa sant yàlla rek. ci fekk gi ñu ko fekkewaat ñaan yàlla hmm, ñun nag bu la wooyee ci kaay yu sant la ma da xool na mu bëggee te na nekkee woon nga sant la ko moom ndax eh, ab toolkat boo koy bay borom tool bi ne la ñëwal bay la ma tool bi doo ñëw dagg li nga xam te gàncax bi ñax mi la soxla nga bay na ci misaal rek laay ndax euh, suñu borom mënuñu xiiral ci leneen waaye yàlla xëy na ci ci biir kon ñu ci sant yàlla di ko ànd ak sama mbokki boobu ñoom ñëpp rek kenn des ñaan yàlla tamit ñu doon ay at yoo xam ne dañ koy fekke di ngeen ñëw ànd ko moo daal bokk na ci kàddu yi nga xamante ni mooy euh, kàddu yi xam naa daal ñu ngi sant yàlla daal cant daal mënut a wees cant cant daal mënut a wees cant ñaan yàlla daal ñu teew ci diwén bëree bëri cant daal mënut a wees cant cant daal mënut a wees cant ñaan yàlla daal ñu teew ci diwén bëree bëri di wax ñi nga xamante ni ñoo nekk ci tël bi daal man man doon daal te def daal te ànd ak seen xel ndax fi mu toll nii oto kat boo ko yoree boo dee boo dee ba àgg bu ñëwee da ngay toog loolu boo dee ba ne da ngay toog kon nag kër yi métti yi ak njëkkante bi mën naa nekk kon ñooñu ñu ko wax ci commencement bi sunu borom mooy jox la ko producteur taxul nga am dal kon nag lépp nañ ko ànd ci risque yi yar dal loolu daal moo nekk si ñaar kàddu yi nga xamante ni dañ ne temps bi moo xot def ñu bari ñu ngi ko yëg waaw. macha allah sëriñ bi ñu ngi santaat bu baax a baax a baax te yow moom sa taxawaay ñun ñëpp xam nañ ko ndax kilifa bi am njëriñ lool ci réew mi te am na loo xam ne sax ñu ko yàlla ci te soxla nga. ñuy bàyyi xel rek ñuy def lu la te mën a jëriñ ay doomu aadama ci wàllu jafe-jafe bu mën a am dafay am solo lool bu la fekkee ci màggal bi fekk na fii sa kër gis ni fi taxawee di la sàmmal bu baax dama mën a naan ko ànd ak yow at yu bari bari bari ak sa jàmbaar ba lay sa manqué ñu koy am bu baax di wax ne sa télévision TFM ñu la koy defal mooy seetu askan bi fépp njaboot suñu Tuubaa nekk rek ci ñun Tuubaa ak ñu ko wër sax tuuti seen daan fépp dañu ko dem wan leen ñu ñu màggal ñu yaa ngi bés bu ñu xam bésu mbégte képp ku wax solo ba yow yaa ko nekkoon ci biir suñu Tuubaa nekk kan sax ko yaa kon képp rek loolu ci biir وبرد ونهد كربة نقم هلالة هلة والهم